Pique Damax. Damax siyaare na sant sëriñ bi rek. tawfeex. defet nu muy def ci mbër. waaw dara da lay rek. nga xool lépp lu la manqué wat nga yokkaat ko. bi nga génne Batista bi nga gis naa ñu jàppoo la ngay jooy lan moo la bett ci xam nga rek ànd ak ay xale daa métti man ay xale rek laay àndal ay tuut rek yàlla def ñu bëgg ma loolu. kon tey man su may maa war a di am ndam chaque jour man ndam rek moom may jik chaque chaque laam ndam rek parce que ñi muy àndal fi ñu toll si man la moo tax. ban erreur nga def ba daan la. waaw xam nga rek lamb moom mënoo see nekk te doo def erreur mbër day def erreur di daan sax kenn du ko gis mais des fois mu daanu si rek gars yi ne daa def erreur fekk yaa ngi ne kaa def di daan waaw. erreur ñun ay xale lañ. boo xamante ne boo ko seetaanee. da nga naan bu démb doon tay du ma def action bi. mooy li ma lay wax rek boo waree daanu erreur bi ngay def sa doo ko xam mais après nag soo delluwaatee fi nga bokk di nga ko répété waat nekkaat si liggéeyaat si ba ëllëg du la dalaat. oui. nga demee waa koñ ba waa kër ga staff bi lan la ñu waxtaan ak yow. waaw ah, dara dañ ma encouragé rek xam ne man xale laa amaguma bay ñàkk lépp man jàpp naa lépp lu ñëw si man rek ndogal la. ñu ngi lay waaw ñu ngi may contacter bu baax na bu baax. da ngay duggaat Pikine wala da ngay duggaat feneen. non fuñ dugg rek. gars yi ñu ngi si fuñ dugg rek baax na. Ah. waaw fuñ dugg rek baax na. noonu la demee.